Serigne Mahamadou Diop nag yaakaar naa ne képp ku dëkk Mbour nekkee si balaa xam nga ko yàlla naa ko jamono yi mañ ma honoré ni loolu da jaxasoo amul woon ci yooyu jamono mu nekk ab élève di jàng dem lycée Demba Diop nekkoon ku bëgg yàlla ko ma sa xam ci njulit nga ko xam ci taalibe nga ko xam xam naa ko lu yàgg laata ñuy xam seen Sidi Mbacke waaye mosuma ko sax gis ma solo yëpp foo ci lu baax rek lañ ko xamal dëgg yàlla loolu nag maanaam baax ak gën baax day am waaye gën dafay liñ jublu nag léegi laaj ko mooy sëñ Mamour Diop jamono yooyu nga xam ne dama laa gisoon ngeen daan sol ay bàyyi laat gën a bari di sol sa yére wolof nekk ab élève di jàng waaye bëgg yàlla ba yu bare bare ba daaw ko dugg maanaam lan moo la ca lan moo la inspiré woon ngir dund ngir nekk ndaw ba pare dëddu àdduna ci ndaw ak bi nga bi nga jaar ba xamante ne lan moo la inspiré woon pour ngay dund façon boobu wasalaam alayka yaa sayyidina yaa wali yàlla yaa nur masali xadratika dañuy sant kaddu gi bu baax a baax te laaj bi fi it ngi sant ndax professeur bi sama wet ndax bi ñu tàmbalee liggéey boobu ñun ñoo dañuy sant suñu borom it na rek ñu am ci Rasul ci maanaam mbaax ñu dimbali ko ay mamu taalibe dimbali ko ab caab maanaam ay ndaw sosoon ko mu tudde sëñ Saliou leen maj mame nooré loolu yóbbu ma ma am ak ak ak yaatu biir kër sëñ Saliou dellu amaat ko ci waa këram mel mel ni Serigne Cheikh Mbacke mi nga xam ne tey mooy xalifa ba bi ñuy dajeeg Maolana Cheikh Sidi Muxtar ànd ak nag ñu jaar nañ ci ay mag ku nekk xam na ko ci bëggam lu baax ak bëgg alquran yàlla daal moo ñu xiirtal ci mbaax ñu ñu xam lan moo tax sax ñu koy maanaam coobareem rek la maanaam du suñu du suñu njàmbaar bi suñu dara xëy nañ daal rek yëg ni suñu xol leneen nekk na ci am na lu ci defoon dara xëy dindi ko def si leneen ba mu ci defee leneen it loolu am fu ñu jubale ñu jóge rek wuti loolu mu am nag maanaam num num ñu ci jubale maanaam muy xëy na yitte yitte bu mag alximmatul aliya ak yitte boobu nag lañ demee jamono yooyu sëñ Samba yi mooy suñu royu mooy suñu royu waaye moom daan dëgg di jàng téere sëñ Sohaybu di ko tedd li mu taalif yëpp ci mu jëm ci ndaw Kazoolu Siraar Kazoolu Simaan Jawharu Nafis Masaalikal Jinaan Nahju Xadaayil Xat Maqaaliqu Niraan wa Mafaatixul Jinaan maanaam téere yooyu yëpp mu nawwir sudur donc amu yooyu yëpp maanaam ëbbi nañ ko ko maanaam ba gis ki bëgg-bëgg ku tedd ki xam ne la muy la mu tegtale dëgg dëgg dëgg di mhm. gën a rëy ci ay tegtale mooy nga wut mhm. mooy nga wut wasila bu mat wasila mhm. loolee nag bi ñu xamee wasila bu mat wasila maanaam war nañu te amaguñu ci lañ def nag suñu yitte maanaam ci sàkkoo am wasila boobu suñu borom nag dimbali ñu di loolu moo Cheikh Sidi Mokhtar biñ dajee nag ci la ñu tegee nag dëgg yoon wi nga xamee ni moom la sëñ Tuubaa di ñu tegtal ci téere yi maanaam te mu moom ci jëmi boppam ci la ci la tegewoon waaw loolu Mawlana Cheikh Sidi moom ci teg ndax ànd nañu ko lu yàgg toog toog nañ diir bu yàgg di góorgóorlu ci suñu borom di def na yi di def farata yi di def sunna yi di def lépp waaye xamoon nañ ne am na lu des loo xam ne moom amaguñ ko te loolee maanaam comme ni ko maam Cheikh Ibrahima waxee rek tànk suñu borom ba gis fu mu bëgg nga dugg fa loolu rek moo la koy tax a may loolu euh, nag moo ñu booleeg Mawlana Cheikh Sidi ñu topp suñu borom ba gis ne mu ngi ci biir jëmmi Seexuna Cheikh Sidi mhm. ñu ñu ñu sukk fa nag parce que yéen yi am am ngërëmam foofu lii moo ñu booleeg tedd ki ñuy ñuy ñaan ay passage suñu borom yàggal ko te wéral ko dëgëral ay njabootam suyoox yi moom nga xam ne nii samp na leen yàlla dëgëral leen te dolli leen dimbal taalibe yi nga xam ne yëpp it maanaam ànd nañ ak ñoom te di jëwriñ di taalibe suñu borom matal ci ñoom leeram maanaam te defal leen mucc ak ndimbal ak ngërëm sëñ Touba nga xam ne moom la ci ñoom sëñ Mamadou Diop doguma la yàlla bala yàlla dog euh, wax nga euh, nga dama xam bis bu ngi dekk jàkkaaroo fii fii nii ak ban année la ak ban année la ak yow ci ci kan la suñu borom jaarale jaarale waaw lay waaw euh, bis bi ma njëkkee jàkkaarloo sëñ bi li mu njëkk li junj ci man mooy confirmation confirmation la ndax yàlla dafa def sëñ bi ma ma gis ko ci gént njëkk ma koy gis bi ma ñëwee ko rek ma xam ne jëmm ji la ma suñu borom booleel ndax yàlla def na manam man gis naa ko njëkk loolu tax ah di di ci topp mooy eh, ki ma nan la yan circonstance laa gisee sëñ bi xam nga li nga xamee ne man yàlla gu wér ak àgg ci moom ak xam ko maanaam dugg na ma yàlla def ci sama xol bëgg ko ak sopp ko ak yittewoo xam suñu borom ak àgg ci moom loolu daf ma dafa juróon ci man ay àll ay àll yu ay crise crise dem na na ma ba sama njàng këyit yi ma jàngoon yëpp xotti bis xotti ko lépp Manam la ca des ma fas ko yéene dugg ak moom ci àll. Mhm. su ma demee lu ma nafar rek. Mhm. bind ci Manam konjang ma gëstu ci téere diine rek bind ci. Mhm. maanaam kon njàng jàng li ñuy wax njàng jàng bi ma nekk. bàyyi naa ko ay yoon yoon. ngir ngir bëgg. ci borom nga benn bis ba dogu ci damay dem. fekk ma am ay adresse yu leer. ci àllu Guinée bi. ñu ma ay ay dara, ak ay sëriñ yu nekk ci àllu Guinée ak àllu bi ma am adresse yu wóor bi Dakar jënd sama téere téere diine yi ma soxla lu doon lu demee ne risaala as asmaawiya yaa ngi dégg ak jëndaat téere téere masaalik bi ma mu yàqu ma jëndaat ko doo diwaan yi ma amoon diwaan waxla mu gin yëpp ma jëndaat ñëw mbuur jënd samay sijaada jënd sama satala jënd sama gal. waaj ba jekk pour dem la sama yaay ñëw ne ma ndax damay dem man ko damay dem. yaa meññe ba. mu jooy. sama yaay bi mu jooyee pour la première fois ma yëg ne sama àll rës na ma yëg ne sama doole ndax sama jooyu yaay yooyu rek ma ne ko man de dematuma moom it mu ne ma dematoo bi ma ne ko dematuma dafa mel ni ku xim ne ma dematuma ma ne ko dematuma mu ne ma. te dematoo ma ne ko dematoo ma ne ma bu fekkee ne dematoo de nga toog nga toog ci sama nga toog ci sama kër gi boo toogee ci sama kër gi maa ngi lay waatal ci yàlla maa ngi lay giñal ci yàlla ak yeneen bi ne li nga bëgg ci Serigne Touba ci yàlla ak Serigne Touba dina la fekk ci sa néeg loolu la ma sama yaay ñaan ma ma toog ma yebbi toog diir boobu sax jàngiwu matul weer matul weer ci laay dox ba ci yàgg sëñ Alaaji Mbàkke xam nga may dox euh, holidays market bi ci Mbuur mhm. supermarché bi supermarché bi may dox wan ginnaaw sëñ Alaaji Mbàkke mu woo bi ma woowee ma tourné gis ko muy al sëñ Alaaji muy boobu muy Mbàkke Mbàkke bu ndaw maanaam na may suñu borom jéggal ci Mbàkke Mbàkke bu ndaw ci ci jamono ma tourné gis ko man jamono yi na mu sopp ma woon mbàkke boo xam ne say at soreegul ngay dox ma ne sëñ bi lan la ma war a doyee waaye xaaral rek ma dinaa dem wuy ko comme que yent bi ko maa ngi dem wuy ko mais maa ngi xaar su ma waxee lu mu loo xam ne lu amul solo rek ñun dina xam ne ko jëfandikoo ndax man caaxaan yi nekk ma fi maa ngi si tàngoor woo xam ne kenn doomu aadama yaatu ma waaw bi ma ñëwee Sénégal laaj fekk dafa ma doon fekk bis boobu mooy sama bisu xettali ma ñëw ci Sénégal laaj mu ne ma ndax xam nga sama kër ma ne ko waaw mu ne ma dama laa soxla dama gis daal ngay yëngu ci lu baax ma am lu ma la yéene ah ma sant yàlla ma ne ko dinaa la dinaa la dinaa ñëw te fan la fekk ngaa ñëw mu ne ma suba ñëwal sama kër dama laa soxla bu julli fekk waxtu ñu ko génn diggante timis ak kenn amul maqaama gis ma dama ko daan dama ko daan foto ñu ko sëñ Sow bi digle waaw maanaam ma dem ci waxtu fekk guddi gi guddi googu may wuy jëy sëñ sëñ Alaaji Mbàkke damaa fanaane jooy bu bët set te lenn mooy sama rongañ dajeeg jëmmi sëñ Tuubaa waaw dajeeg moom ndax yëgoon naa ne àdduna bi suuf si lëndëm na kurus te sëñ Tuubaa bu dong mooy ki mu mën a xeetal loolu dama daan sukk di ko jooy bët set yàlla seetlu alors bi ma ñëwee ci sëñ Alaaji Mbacke mu nuyoo daal te dëgëral te yëkkati ko te yokk ay maqaamam eh, barkeel njabootam ne ma dafa am dañ fay am sang bu fi nekk fii ci te na sëñ Tuubaa lay yare laaj leen sëñ Alaaji Mbacke dama ne Allahu akbar daan ne ko sama ñaan nangu na lii moom laa mujjee ñaan ci guddi sama ñaan nangu na ma ne ko ndax dañ fay dem léegi mu ne ma déedéet kilifa la bàyyil ba suba fañ daje woon foofa ñu dajewaat foofu ñu dem këram bi ma gis sëñ bi rek par yàlla njëkk ma koy gis comme ni ma leen ko waxee ci njaal bi yàlla wanoon na ko ci gént am na ku gisoon ku baax ci gént mu nekk ci turon maanaam ci kursi wu la nekk ñu teg ko ci moom Mawlana Cheikh Sidil Mokhtar sëñ Cheikh Mbacke moom sëñ Saliou ne ma nuyul ku baax fi mu nekk kawe kawe kawe mbooloo mi toog foofu yëpp sëñ Cheikh moom gént gi nettali naa ko sëñ Cheikh moom sëñ Saliou mi nga xam ne mooy xalifa bi actuellement ndax maanaam moom dañoo jaxasoo mais waxuma ko dama ne ko rek danga ma dama gént nga may nuyul ku baax waaye waxuma ko maqaama mi sëñ bi taxawee ci gént gi ñu introniser ko mu nekk ci trône moom Maulana Cheikh Sidi Moukhtar keroog bi ma ko nee jàkk ak verre yi ak mbaxane mu rafet ba mbaxane bonnet carré bu weex ba Chefalu yaa ngi fàttali ko ni ma ko gisee ci gént gi noonu noonu noonu la noonu laa ko fekkee keroog mu toog ci teddangaam la ci takusan yaa ngi gis sëñ alaaji mbàkke boole ngi mu nekk lu lu lu jàppandi ndax wax ju wax ju gaaw la mu xamal ma ne ma turu yàlla yi ngay sikar nii sa sa sa dën sa xol ak sa làmmiñ suñu borom xamal na ma effectivement allazina yaskuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ard loolu ñun dañ cee nekkoon liñ li ñu li ñu jaaxaloon nag mooy wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ard ndax loolu xamoon nañ ne fatxu rek moo ko mën ñu xam ne nag comme yàlla wax na ko yàlla lu mu wax dëgg la jaam yooyu ñu ngi ci suuf di dox ñu def suñu yitte ci gis leen te mu mënuñu leen woon a gis nag ci lu dul ndimbalu yàlla yàlla dimbalu ñu ñu dajeeg Maolana Cheikh Seydi bis bu ñu dajeeg moom lim njëkk a def mooy ibbil ñu buntu asamaan yëpp kon nag ñu ngi koy sant bu baax a baax li yéem ci li yéem ci li li yéem ci suñu borom nag mooy yeneen yi bu ñu ni nga xamee ne seen digg ak seen borom du am diggante amu ca teewul ay nit dong lañ dañuy lekk di naan dañuy am bëgg-bëgg di am bañ-bañ yenn saay sax mën nañu def sax ak mata gi waaye teewul mbootum suñu borom mu ngi ci ñoom waaw sëñ bi nag moom moo def mbootu suñu borom ci ñun ñu ngi koy sant moom mi nga xam ne mooy mbootu yàlla moom Cheikh Sidi moom mooy sirru sirrullahi waaw moom la jërëjëf sëñ Mamadou Diop defuma eh, la yàlla bu la yàlla dog nga wax lu am solo dafa am benn saxaaba boo xam ne ba ngay wax rek sama xel dafa nekk ci moom moom nga ma delloo sël yénti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne mosuma def daawa kenn ci lislaam lu dul mu dengi dengi maanaam mu am xala xel ñaar ku dul Aboubacar Aboubacar keroog ba ma ko ne yàlla ma yónni rek dana ma dana ma dëgg la dafa mel ne yow sa ni nga nangoo la ko tedd kii dafa dëppoo gis nga alxaaji Mbàkke bi mu la waxee da nga tudd yàlla daal di nangu bu ñu ñëwee ci nga ñëw rek daal di nangu mu nangoo ci mel ne mbokk moo xam ne ko jaxasoog sëñ bi jamono daan na ànd ak sëñ bi lu bari mu ne ma mas nañuy dox ci mas nañuy ànd ak sëñ yor oto. dëgg ñëwee ba toog borom bi esat bu njëkk bi. jëm marché. am benn waay bu sol benn bayaat bu xonk di jéggi tali bi. dëgg la bi ne ko jëmm di jéggi tali bi day. sama la mën lay wër. dëgg la jëmm jooju yow mi la woon. dëgg la kon loolu lu yàgg te boobu xamoo ko si moo ko xamalal ah, loolu yëpp ku tedd moo ko nettali. fekk mbir ku tedd rek. yaa yaa kat yaa soxna Xadi Jëm yaa suñu yaay yaa Xadi Jëm Fatou Sy maanaam moom daf ma gis ndekete sopp ma daan ne moom ci suba gi ma gisee ci ngoon nga lay ñëw kër ku tedd gi ci suba gi li ma gis di dem marché ne ne kii ko ne kii day am yéene bu rafet ci man ne kii day su ma sañoon ma xamante ak sëñ bi ci ngoon gi li ma gis ci kër gi sëñ bi ci tudd sama dom bu njëkk awa soxna awa sama taw ci la leeral ne yàggoon na njëkk may ñëw ci moom mu ànd ak euh, chauffeur bu ñu naan Boubacar. <laughs> ñu gis ma may dox. mu xamal ne ko jëmm jii day man lay wër. ñu waxtaanee dinañ gindi ko. waaw yàlla kon sëñ bi moom xam ru suñu ru yi fa ñu. ànd fa nekk moo ko fa def. wax dëgg fa yàlla ñun kon duñ ci dara. li nga xam ni moo leen boole woon ñoom ñaar ah ku tedd kii toog nag di Mawlana naa Sidi Mbacke al Mokhtar am na ay kàddu yoo xam ni magam ju baax ji junj na ko ci moom muy li ma nekk fi ci dëkk bi muy mbuur muy barab boo xam ne li ko fi indi mooy tàggat doomu aadama yi ba ñu mën a tegu ci yoon yi nga xam ne ci la yàlla bëgg ak jullit tege ci muy siraatal mustaqim te defe naa ne ñun ñi fi teew ñëpp képp kuy julli di tari fatiha te booy tari fatiha boo ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu benn baat dong nga cay teg mooy ihdina siraatal mustaqima yàlla yàlla muy teg ci yoonu jub kon yoonu jub moo ko bàyyi nguur muy jëmm joo xam ni liggéeyam du lenn lu dul defar doomu aadama ba ku ko gis bëgg mel ni moom te loolu jëmm ji fi jógee mu Cheikh Mouhamed maanaam seere la ci ñëpp bëgg na koo jur ñëpp bëgg na koo wóor la réew ñëpp bëgg na koo xaritoo te loolu lakk ko mooy muy ànd jëmm jëmm ji te jamono bi muy daje jëmm ji àggu na ci mar yàlla koo xam ne leer nañu nañ ni man am naa seer kenn bu daje woon ak jëmm ji dafay faat bàyyam juñ na ko sant takkoon na ay bagages bu gën a gannaaw Gàmbi pour wuti ku ko defal ngir dëgg gum doon wër te gisu ko ba yàlla dogal nag moo dajeeg jëmm ji li bàyyi wax sànq nii bu daawul def EPS euh, e ak ay soxna man loolu seere naa ci daan naa ñëw sama kër ma ànd di ko gunge bu ñu taxawee ci kaw tali bi oto bu wàcc mu arrêté ko gis soxna ci bii danaa lu ci dugg ngir lan boobu dafa mar boroom bëgg dund ji te xamoo nu koy defe keroog bi nga xamante ne daje naa jëmm ji nag moo rocc dangar jooju defaraat ko bu doon def ak oto bu yàqu la man moo ko tulliwaat bu ne ak kër la boo xam ne dafa maam moo ko tabaxaat lu tax mooy yàlla da ko jox jumtukaay yi nga xam ne moom la ñuy tabaxee ndax maçon maanaam kër boo ko joxee ku dul bu fekkente ne maanaam it tabax ba rafetul xas moom kan ko jox xasal sa bopp waaye soo ko jox bu mën a tabax oto bu yàqoo da ko jox ab maanaam bu fekkente ne maanaam euh, sa armoire wala sa am na lu yàqu da nga koy jox ab bu yëpp jeex. te yooyu màddiyee kese la muy maanaam euh, matériel rek euh, matériel rek la waaw lan moo tax ruu nag mi nga xam ne ci la yàlla am soxla te mooy xol bi nga xam ni moom la yàlla di wax ni ëllëg yawmal xiyaamatu doom yu bari du jëriñ dara alal yu bari du jëriñ dara la fay jëriñ nit mooy xol bi sell ruu googu kon ki ñu koy jox dañ ko war a tànn moom ba mu demee ba xam ne ruuxam ëllëg bu delloo ci yàlla te setul yàlla dina ko dëkkal ci dëkkuwaay yu metti te mu xam ne dëkkuwaay boobu ba sax la abadiyan sarmadiyan la ci la bàyyi lépp jaante ku tedd gi ku tedd gi di ko yóbbu di ko yóbbu di koy yóbbu ba mu àgg ci maqaamatu yàq di nga na ne diggam borom deret su ko kon mbaa ko yàlla bu yàgg te ànd ak wér démb ji ñaanal ko fardal ndax liggéey bi muy liggéey bu doxee ci kaw suuf police yi dinañ noppalu gendarmerie dinañ noppalu barab yëpp dina noppal mooy kenn doon ko dem di leen kalaam ak dara ndax lu tax dafa yar ab taalib def ci moom jikko yoo xamante ni koo gis da ngay bëgg mel ni moom kon moom moo bëgg jël kàddu di Mawlana Seex Sidi Mbacke Al Muxtaar ñu ngi ñuy ñun ñëpp di ñu wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه سوي الرضوان والتمكين ورضي الله عن خادم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te leen siyaara mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ku tedd ki Mawlana Cheikh Sidi Mbacke nee na mi ngi nuyu te di ñu siyaara tey sant yàlla bu baax di ko gërëm mi ngi sant yàlla bu baax di ko gërëm ndax lillaahi ma ata wa lillaahi ma axasa ndax lillaahi ma ata wa lillaahi ma axasa yàlla moo moom li mu maye woon waaye moo jël li mu moom di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. di sant kilifa yi fi teew yëpp. ku tedd gi nee na mi ngi sant kilifa yi fi teew yëpp. dalee ko ci ñi ko doon jàngal te jógee ci daara ju mag ji. dalee ko ci ñi nga xam ne ñoo ko doon jàngal te jógee ci daara ju mag ji muy université. yi ñu ko seeree ni ñun ñëpp dégg nañ seere yi nga xam ne seere nañ ko ko ni mu rafete mel ne Cheikh Mouhamad léegi dafa nekk xudwa lil ajyaalil xaalima. mu mel ne nag Cheikh Mouhamad Diop dafa nekk xudwa li ajwaajil xaalima maanaam dafa nekk modèle. dafa nekk royuwaay dafa nekk exemple ci mboolem ñi nga xam ne ñoom la bokkal jamono. ak ñi war a ñëw. ak ñi war a ñëw. ndax euh, li fi sëñ Moussa daaf seere seere yu rafet la. ndax li nga xam ne sëriñ Moussa seere na ko fi seere yu rafet la. yéen it kon yéen it ñi nga xam ne yéen a ko doon jàngal yal leen yàlla fay. seen taxawaay rafet na ci moom. seen taxawaay rafet na ci moom. di sant waa waa daara ji nga xam ne ñoom la nekk loolu muy étudiants yi di sant ñi nga xam ne ñoom la bokkaloon nekk ca daara ju mag ji muy université étudiants yi ku teg jigéen nee na yéen mi ngi leen di sant mbir mi xewee ba léegi noppaluwu leen bi mbir mi xewee ba léegi yéen day noppaluwu leen keroog ay kaar ngeen jël àndandoo ñun ba ni ñu ko denc keroog bi xew-xew bi xamee xewee da a jël ay kaar bàyyi ko Ndakaaru ànd ak ñoom ban denc ko Daara Salaam si loolu nag mooy kóllëre. loolu mooy li ñuy wax ak mbokkoo. loolu mooy li ñuy wax ak mbokkoo. yal na yàlla barkeel leen. kon yal na yàlla barkeel leen. defal leen xam-xam bu barke. defal leen xam-xam bu barke. ngeen xam ne yéen ëllëg réew mi yéen a koy yor. ngeen xam ne yéen étudiants ëllëg réew mi yéen a koy yor. yéenay yaakaari ëllëg. yéenay yaakaari ëllëg. kon loolu. ñi ñu ngi leen koy fàttali bu baax. kon loolu day ku tedd gi nee na mu leen koy fàttali bu baax. danañ ca ñëw ca kanam incha allah. di sant mbokki deretam yi fi teew yëpp. di sant mbokki deretam yi fi teew yëpp. di ko tàmbalee ci waajuram wi teew. di ko tàmbalee ci waajuram wi teew. muy Baye Mama Diop. ak Menge Ba. ak Menge Ba. ak seeni njaboot yëpp. ak seeni njaboot yëpp. li ko dalee ci ngaala. li ko dalee ci ngaala. ba ci soxna yi. ba ci soxna yi. ñoom Xadijatu Jóob. ñoom Xadijatu Jóob. ñoom jatu. ñoom jatu. bàyyiwuñ kenn. bàyyiwuñ kenn góor géeg ñëpp bàyyiwul kenn. ku fi ne rek ci kër gi ñu ngi la koy masawu. képp ku fi nekk ci kër gi rek ku tedd gi nekk na mi ngi lay masawu xew-xew bi dal suñu kaw. seen maam moo nga dëgg ñàkkuloo ñun ñoo ñàkk. Baye maam ma Diop ku tedd gi nee na wax nga dëgg yow day ñàkkuloo waaye ñun ñi ñoo ñàkk. ndax fukki at a ngi nii ci suñu jumtukaay la woon am nañu ko sëñ Xaadim di waxee suñu outil la woon. fukki at futa fukki at nii yoo xam ni Cheikh Mouhamadou Diop jumtukaayu kuréelu yàlla gi la woon ñi ko Cheikh Xaadim wax maanaam outil la woon ci kurél gi. outil la woon boo xam ne maa ko daal jëfandikoo saa su nekk. outil la woon boo xam ne moom day moo ko daal jëfandikoo saa su nekk. ba ci. semaine bi mu nelaw yónni naa ko ab dëj ba ci semaine bi mu nelaw ku tedd ki yónni na ko ab dëj dëj bi sax moom ma ko yëgal moom moo ne ma yaayu Lamine ba nelaw na te dëj boobu moom moo woo ko tedd gi ni ko mbàkke sëriñ Lamine Ba waaye juróom wu jigéen dafa nelaw. te Lamine Ba moomu moom moo doon kilifaam. te Lamine Ba moomu Cheikh Mouhamed Diop moo nekkoon kilifaam. mu ne ko kon xoolal ñu la wéttali ci jawrin yi ak suyoox yi ngeen dem toppatoo. mu ne ko kon xoolal ñu la wéttali ci jawrin yi ak suyoox yi ñu dem toppatoo ko. mudam top toppatoo soxna sa bañ jébbal ko cetak mu dem taxaw ca toppatoo soxna soxna sa bañ jébbal ko boromam. mu waat ma ni ma lépp def nañ ko. mu waat ko ni ko mbàkke lépp def nañ ko. fu rafet la ne dañu waroon war di ko rafet. waxtaan woo nga xam ne waxtaan fa ñëpp dañoo mujj di yëkkati seen téléphone di woo ko tey ngir rafet boo xam ne waxtaan wa rafetoon na ko. la dem Dakar ci. ba fa jógee la dem Dakar ci ay bis ci la ko moom ci liggéeyal ma la nekkoon ba ba ni mu wàccu liggéey. kon moom ci liggéeyal ku tedd kii ci la nekkoon sax ci ba ñu wàcce liggéey. di sant bu baax. sant nag bu baax. kilifay dëkk bi. kilifay dëkk bi. ndax ñoom ñëpp ñëw nañ fi. ndax ñoom ñëpp ñëw nañ fi. Serigne Fallou Sylla bu Mbour kenn njëkk di monsieur le maire keroog bi xew xew bi xewee kenn njëkk ko fi. ànd ak ab délégation bu bari. jóge nga xam ne moom lañ gën Ousmane Lo ñëw na sinje gi nga xam wala ku tedd ki am daara te gën a jege def nañ délégation ànd ak maanaam seen président comité rural ba ñu ñëw muy sëñ Ousmane Lo ci kilifa yi yi desul kon ñoom ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ndax nit rek la am ab la woon ci ñun. te Cheikh Mouhamed Diop cër la woon ci ku tedd ki. ab cër la woon ci ku tedd ki. maanaam Cheikh Mouhamed Diop dem gi mu dem dafa mel ne dafa dañoo dagg benn cër ci ku tedd ki cër boobu dem. kenn ku ne xam na ni am na lu ñu manqué. loo xam ne boo ñëwee ci gàmm gi mu doon def. da ngay yëg ni Cheikh Mouhamed Diop taxawaay bi mu amoon ci gàmm gi ay la yewen feeñ na ci. ndax wàllu nizaam moo ko yoroon. ndax wàllu nizaam muy organisation moo ko yoroon. ñëw moo lay gàttanu bépp kilifa bu mës a ñëw ci gàmm gi moom moo lay gàttanu wax ak yow. tatagal la yóbbu la fa nga dalal la yóbbu la fa nga war a nekk. soog a ma léegi buñ demee tamit ba war a génn moom mooy ñëw ni ko mbàkke lépp noppi na war ngaa mën a génn nag. kilifa yi ko diw ak ginnaaw boobu ku tedd gi bu def gàmm googu ay kilifa dañ fay teew moom mooy ñëw ci ko tedd gi ne ko ana ñan ak ak ñan ak ñan lañ war a tegal photo yi ci kaw mu ne ko diw ak diw ak diw mu daal di jël ñooñu ñëw toog ci kaw podium bi. noonu la ñu nekk woon ak moom. dafa mujj dafa bokk ci sama famille. ba dafa mujj nag bokk ci famille ku tedd ki. nga xam ni Cheikh Mouhamed Diop dafa bokkoon ci njabootu Cheikhuna Cheikh Sidi Mbacke al Muxtaar. ba sama taaw sax moo ko dugal école. ba taawam bi sëñ Moustapha Mbacke Cheikh Mouhamed Diop moo ko dugal école. jëndal ko ay fourniture. jëndal ak yére tubaab yi mu war a ak yére tubaab yi mu war a di jaar nag ci école ba muy jànge ak ca kër ga di nemmeeku am njàngam. maa ngi koy jàngal alxuraan ci kër gi. fekk na nag sëñ Moustapha ku tedd gi mi ngi koy jàngal alxuraan ci kër gi. ñaari njàng yëpp di dem. ñaari njàng yëpp di dem. ba xale boobu déwén la war a def def. ba xale boobu déwén la war a def defam. ba yëkkati woon naa ko ne ko sa doom la yow laa ko sédd. woon na ko ne ko sa yow laa ko nga xam ni Baye Mamadou Diop rek la daan wax moom Moustapha. nga xam ni sëñ Moustapha biñ ko tàggee Cheikh Mamadou Diop dafa jooy bay bëgg bayam di. xam na ne ki dem baayam la. ndax xam na ni ki dem la. ak jokkoom ci man nag. ak jokkoom nag ci ku tedd kii toog. yàlla daf ndax sama kër di dem ba. ndax moom day yàlla dafa dogal mu jógee këram di jëm di dem ci biir dëkk bi maanaam ville. romb ko muy jàngi lii sa démb jóg. romb ko muy jàngi lii sa démb jóg. mi ngi sol ay yére yoo xam ne daf koo tegale. mi ngi sol ay yére yoo xam dañ koo tegale. day sol bu doon ñetti mbubb. nga xam ne boobu day tegale ay baylaat ñetti baylaat lay tegale. sol maraakis yu mag. sol maraakis yu mag. nga wax ak ki ma nekk ci biir oto bi ne bu kële léegi bu ñu waxtaanoon maa ngi moom suñuy waxtaan dana dëppoo. mu wax ak ki mu àndal ci biir oto bi ne ko kële day di dem bu ñu waxtaan ak maam moom suñu waxtaan danañ dëppoo. biir na ma ne na lu mar bëgg koo naan waaye nag mosu ko. ndax ko jamono boobu am na lu mu mar bëgg koo naan waaye gisugu ko. xam naa ne bu ñu gisee dana ci màndi. te xam na ni bu ñu gisee la mu mar dana ci màndi. man boobu defar nit. dama cee àgg koo xam ne jaral na ma sax ma di la neexal. te it boobu moom defar nit. dafa koo toll foo xam ne jaral na ko mu àgg sax di la neexal ngir defar la. suñu jox na ma ndigal te ndigal li faw ma jàllale. ndax suñu borom jox na ko ndigal te ay la yeneen ndigal loolu faw mu jàllale ko. dëkk baa ngi nii kilifa yu baree baree bari am na ndaw yu ma yebal ci ñoom bi ma jotee digal. dëkk baa ngi nii mat nañ seere ci loola. bi mu amee ndigal ci boromam yebal na ay ndaw yu bari ci ay kilifa yu bari yu nekk ci dëkk bi jotal leen ndigal loolu. Moustapha mii bokk na ca moom laa daa yebal ak Cheikh Alaaji. Moustapha Mbaye mii toog ak Cheikh Alaaji bokk na ñi nga xam ne bi ku tee dig jotee ndigal ñoom la daa yebal ci kilifa yooyee ci ndigal li moom. dem leen ci diw ak diw ngeen na ko njugub yàlla wàcc na mi leen dem leen ci diw ak diw ak diw xamal leen ni njugub yàlla wàcc na fi ñii wër fu ñu dem ñu jàpp ne eh, lii daal ñii daal ay cinéma maanaam ñii wër kilifa ku ñu dem wax ak ñëw nga reetaan leen daal ne ah ñi daal ay cinéma ay gone yi daal jëmuñu fenn dañuy taxawal rek li xew xamuñu ko fekk li xew dañ koo xamut loolu ci laa gisee Cheikh Mouhamad bi ma bi ma ko gisee romb ko mutul ñetti fan mu ñëw sees ci loolu nag ci la gis Mouhamed Diop mu xam ne kii kat buñ eh, waxtaane danañ juboo matul ñetti fan mu ñëw si ko bi mu ñëwee la jaayante ak moom bi mu ñëwee la jaayante ku te digg di Cheikh Sidi Mbacke ci laa ko teg ci yoonu tarbiya ci la ko teg ci yoonu tarbiya éducation spirituelle muy éducation spirituelle maanaam yar ko ci wàllu ruuxam tarbiyatu ruuxiya muy lu ñuy wax ak tarbiyatu ruuxiya muy yar nit ki defar ruuxam ba yéegi ko ci boromam. ba mu jeex tàkk ci yàlla. ba mu jeex tàkk ci yàlla. ba la doonoon ay kiiraay mi yëpp yàlla mënul ko. ba la nekkoon kiiraay digg mu borom yëpp. sans borom mënul ko kiiraay yooyu. mujjoon na sax ci xaqiiqa la doon dox. ba mujjoon na sax Cheikh Mouhamed Diop ci xaqiiqa la doon dox. dafa àgg ci làpp ba xàmmeetu ah, ba ba mënta def arrabtu bayna shariati wal haqiqa ndax dafa àggoon ci làpp ba mënta def arrabtu bayna shariati wal haqiqa moo tax bi mu bi mu bi mu nelawee moo tax bi nga xamante ni yàlla li nga xam ne mooy def li ko soob dogal na see Muhammad nelaw ngir tënk ngir tënk def naa ci moom ay abiyaat yoo xam ne dama julli ba timis rek bay di ñëwal ba def na ci moom ay ab yaag muy ay béykat yoo xam dafa julli timis ba noppi rek béykat yi ñëwal ko. mënatuma koo téye ma daal koy bind. mënatu koo téye mu daal koy bind. am ne bu ma ko bind doon du ma am jàmm. nga xam ni bu ko bind doon du am jàmm ñii séddale boole nañ cee boole ba waxtaan wi noppi. ñii séddale boole nañ cee boole ba waxtaan wi noppi. la yëg ak woyof. ba mu ko bindee ba noppi ci la yëg ak woyof. muy دمعت عيون العاشقين لفقدهم وبكى لموتك معظم الإخوان قد كنت نعم العبد برا صادقا ومسبحا في معظم الأحيان قد كنت بساما ضهوكا مقبلا برا لطيفا مؤمن القرآن قد كنت معطاء لمالك بالبكاء ولقد شهدت وليس بالبهتان قد كنت كالراعي الشفيق لأهله ملياف ضيف دائم الإحسان قد مت قبل الموت موتا باطنا وشربت كأس الحب والعرفان فجزاك رب العرش خير جزائه وأتاب كربك مذهب الأحسان واعلم بأنك ذو حياة طيبت عند العلي المالك الديان الله أكبر loolu mooy abyaat yi nga xam ni moom la ko tedd ki marsiyaale Cheikh Mohamed Diop. dama ne ko ronga ñi soppe yépp ngi tuuru. daf ko wax ne ko ronga ñi soppe yépp ñi ngi tuuru. mbokk yépp ngi jooy. mbokk yépp ngi jooy. ngir ñàkk gi ñu la ñàkk. ngir ñàkk gi ne la ñàkk. ngir tàqalikoo gi ñu tàqalikoo ak yow. ngir tàqalikoo gi ñu tàqalikoo ak yow. mu ko yow day nekkoon nga ni nga war a nekkee. mu ne ko yow day nekkoon nga ni nga war a nekkee. ñàkk morom. nekkoon nga di ku ñàkk moroom saa di xam di ku dëggu. nekkoon nga di ku dëggu. nekkoon nga koo xam ne fu la fekk da nga daa tudd sa borom ci lu ëpp ci jamono yi. bu nekkul di sikar mi ngi jàng alxuraan. bu nekkul di sikar mi ngi jàng alxuraan. wala muy waxtaane yàlla. wala muy waxtaane yàlla. xat kunta bassaaman daawakan muqbilan bu la masaaj jub tamit rek nay gis mu muuñ wala mu ree. mu ni tamit nekkoon nga koo xam ne ni am muuñ kat nga ab reekat nga saa bu la musaana jóg da gis mu muuñ wala mu ree alxuraan di ku baax latifan di ku am yërmande mu ni alxuraan di ku safa jàng alxuraan nekkoon nga di ku baax di ku ñeewat ak koo xam ne fu la fekk yaa ngi jàng alxuraan ma ne ko fat kunta nekkoon nga miata an di joxe waa koon li maa ni ko ñeel sa alal bil ku ka boole ko ak di jooy mu ne ko nekkoon nga jëmm joo xam ne sa alal da nga ko daan joxe waaye nag da nga cee boole boo koy joxe di jooy na ko kanam ba tàyyi loolu day Cheikh Mouhamed Diop def na ko ci kanam ko tee digg ba tàyyi bi mu amee bourse la tàmbali loolu bi mu amee bourse la tàmbali loolu dañu tàmbali liggéey damay jox addee a ko bi ba ñu mu tàmbalee liggéey daf ko jox àddiyee boole ko di jooy. ma ne ko walaaka shahidtu walaysa bil buhtaani lii ma la seereel du aw duur wu ma la teg waaye lu wér la. mu ne ko nag lii ma la seereel du aw duur wu ma la teg waaye lu ma seereel lu wér lu ma xam la. ma ne ko xat kunta karraa'i shafiiq li ahli da mel ne woon ab sàmm boo xam ne dafa bëgg ak juróom. mu ne ko àggoon nga ci jikko yu rafet foo xam ne dangaa mel ne ab sàmm boo xam ne bëggoon ak juróom la. ni àndee ak say bokk ci ni ngay àndee ak say bokk ak ni ngay àndee ak say xarit nga xamee ne sàmm ko du bëgg jur gi xiif du bëgg jur gi jur gi jur gi mar du bëgg tamit ak til fàtt leen noonu la meloon ci njaboot ñi nga xam ne ab sàmm du bëgg ak jurum xiif mbaa ñu mar mbaa ak til fàtt leen Cheikh Mouhamed Diop noonu la meloon ci ak njabootam ci màggalu Touba gi dafa ñëw ci man ne man dama bëggoon ku mu fi indi ma jébbulu rek mu jébbulu rek ma indi ko ma indi leen ñoom ñëpp def leen wenn say ñu siyaare ndax bëgguma njaboot gi tasaaroo maanaam ci lim mujjee def ci màggal gi mboolem koo xam ni dangaa jébbalu te jaara ci moom dafa dajale ñun ñëpp indi na ci ku tedd gi ne ko mbàkkee ñii dey dama fi indi dama leen indi ngir bëgg ñu siyaara la ndax damaa bëgg ñu booloo bëggu ñu tàqali ko. loolu mosu koo def. te loolu musu koo def ci benn programme. ren la mas a dajale. maanaam ñi ne ci gannaawam yéen ñëw siyaare ko ci mag. ren la mës a dajale ñi mu jaboote yépp ñëw ànd ak ñoom siyaare ko te digg ci màggal bi. kon doon tàggatoo ak kon dafa mel ni daf doon tàggatoo ak ñun. midia fa dayfin daa'imal ihsaani ku mënoon a teral gan la. mu ne nag bokk na ci ay jikko yu rafet yu ko yàlla defaloon ku mënoon a teral ay gan la. kon it daa jot wala wala beneen xew. mu mu ne taalib yi maa leen invité fii loolu ñun de xam nañ ci dara kori da daa jot wala tabaski mu ne kenn ku nekk ci ñun bala ngaa dem sa kër dañuy dem kër ga ñu xéewalu naan lu sedd kenn ku nekk soog sa kër. mu def fi teraanga yu bari. su ko defee mu def ay teraanga yu bari. daa imal ihsaan la woon doonu toon koo xam ne tamit dafay def lu baax tey ba liggéey mu bàyyi. koo xam ne la woon te it lu baax li mu daan def dafa daan daaw ko def tey bàyyi suba daje saxoon euh, abadan di ko def. bu kii at im nekk ak man mësta taxaw. fukk at yi mu nekk ku tedd gi mësta taxaw. waaw ca kanam rek. ca kanam rek. musuma koo soññ. waaye musu koo soññ. jamono bu ne mi ngi xool lu doxal daawa bi. bu nekk mi ngi xool li doxal daawa bi. ak lu ko jëme kanam. ma ne ko xat mutta xablal mawti mawtan baatinan yow de laata ngay faatu faatu bi am na geneen faatu goo xam ne faatu biir la koo def. mu ne ko day yow Cheikh Mouhamed Diop faatu gii la dikkal laata nga koy def faatu woon nga faatu goo xam ne faatu biir la. wala laata ngay dee dee woon nga. wala laata ngay dee fekkoon nga dee ba noppi. doon na am néew lu di dox ci kaw suuf laata ko faatu gi. doon na am néew bu yàgg di dox ci kaw suuf laata faatu gi di ko dikkal. faatu googu nag la Seydina Omar di wax ne mootoo xabla an tamootoo wa zinu anfusakum xabla an tuusanoo dee leen njëkk ngeen di dee. faatu kooku moom la ñu wax ni muutu qabla an tamuutu wazinu eh, anfusukum qabla an tuwazinu maanaam dee leen balaa ngeen di dee te ngeen di posé seen bopp bala ngeen di posé. moom la yonent bi waxoon ne ku bëgg gis néew bi ndax na ko xool ci Abu Bakar. moom la yonent bi di ñoom ci Seydina Abubakar wax ni. képp ku bëgg a gis ku dee ba noppi di dox ci kaw suuf xoolal ci Seydina Aboubacar Sadiq radiyallahu anhu. kon al mawtul xaqiqi huwa al fanaaw fi l xaq. te al mawtul xaqiqi huwa al fanaaw fi l xaq. mooy dem ba déggatoo gisatoo waxatoo yëngatoo defatoo dara lépp yàlla moo koy def. nga dem a dem ba déggatoo gisatoo yëngatoo dalatoo lépp yàlla moo koy def. nga mel ne takk der maanaam ci sa jëmm ni maanaam ni nga xamee ne sa jëmm noonu la demee sa takkandeer noonu la demee sa borom. ni nga xam ne sa takkandeer noonu la mel ak sa jëmm noonu ngay mel sa borom moo nga xam ne sa jëmm lu mu def rek takkandeer def ko fekk takkandeer def ko waaye jëmm ja moo def. faatu na ci yàlla bu yàgg yàgg yàgg yàlla rek fi desoon. kooku faatu na ci yàlla bu yàgg yàgg yàlla rek fi desoon. moo tax ma ne ko xat mutta xablal mawti mawtan baatinan waaye nag wa sharibta tamit kaasub sopp yàlla xam yàlla. ku tedd ki doon hmm, ma wax loo xam ne damaa tiit ci moom bi mu ko waxee fi mu àgg tey gone ah, dama ko xaw a faral sax bëgg mu jàll ci wax. nee na ci ginnaaw rek bu yàggul laata muy faatu dafa am lu mu ko wax ci moom loo xam ne wax ji da tiital ba koo fereel ndax bëggul mu jàll. lu mu ci tolluwaayu boromam yoo xam ay wax yoo xam ne da ko wax ci tolluwaayu boromam ku tee da koo fereel ngir bëggul mu jàll. ndax ndaw waru faa mën a dugg. ndax ndaw waru gu faa mën a dugg. naanoon na kaasub sopp yàlla naanoon na kaasub xam yàlla. kon moom naanoon na kaasub sopp yàlla. kaasu xam yàlla. loolee nag yowmal xiyaam mooy lay jëriñ. te loolu nag yowmal xiyaam mooy la fay jëriñ. Mm, yowma laa yanfau maalun wala banuuna illa man ata bi qalbin salimin bis boobee alal du ko jëriñ doom du ko jëriñ xol bu set wicc moo koy jëriñ. sunu borom subhaanahu wa taala wax na ci alquran ne bis boo xam ni doom du jëriñ dara alal du jëriñ dara la fay jëriñ daal mooy xol bu sell. lu yàlla xool gis ko ci biir xol bi lu dul moom rek du lu yàlla xool gis ko ci xol ba lu dul yàlla rek yàlla du bëgg xol booba. moom nag demoon na ba xolam boobee yàlla doo nga ca nekk. moom nag demoon na ba xolam boobu yàlla rek a ca nekk. ku sori woon la ci xaqiqatu. ku sori woon la ci xaqiqatu. tax ma ñaanal ko ne ko ataaba kuru baka musibul ahsani yàlla mi nga xam ne mooy demal njàqare yàlla na teeyal fi nga tëdd. moo tax mu ñaanal ko ne ko yàlla mi nga xam ni. mooy dañal mooy demal njàqare yal na seral suuf si si nga tëdd muy suuf daaru salaam si ñëw. waaw alam bi annaka soo xayaatin tayibat xamal ne tey nag xam nga dund gu tey. mu ne ko nag liñ lay bëgg la nag nga xam ne mooy sax pay na nga xam ni am nga dund gu tey. yaa ngay dund fa yàlla mu kawe ma. yaa ngay dund fa sa soppe ba sa yàlla mu kawe ma. yaa ngay dund fa yàlla mi nga xam ne moom moom lépp. yaa ngay dund fa yàlla mi nga xam ne moom lépp. yaa ngay dund fa yàlla mi nga xam ne lu waay jëf moo la koy fay. yaa ngay dund fa yàlla mi nga xam ne lu waaye jëf moo la koy fay. wala tahsibanna allazina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaa'un inda rabbihim loolu alquran ko. alquran dafa wax ni bu leen njott mukk ni ñi nga xam ne dañoo faatu ci yoonu yàlla dañoo faatu déedéet faatu ñu de da ngay dund fa seen borom. Muhammad martir la. te Muhammad martir la maanaam shahid la ku dee ci jihaad la. li ko taxoon a génn mooy mooy mooy génn ngir dëgg rek. mooy li nga taxoon a génn du lenn lu dul ngir génn rek ngir dëgg rek. te gaañul kenn xeexut ak kenn. te gaañul kenn xeexut ak kenn. kon li ko dal mën nañ ko jàppee shahid. kon li ko dal mën nañ koo jàppee shahid. suhadaa yi buñ fi jógee dañuy dund fa seen borom. te suhadaa bu ñu fi jógee dañuy dund fa seen borom. kon moom mi ngi ci jàmm. kon moom day mi ngi ci jàmm. ma nga ca yiw. ma nga ca yiw. ma nga ca naataanga. ma nga ca naataanga. nañu ñaan yàlla yokk ay leeram rek. nañu ñaan yàlla mu yokk ay leeram fa mu nekk. di ñaan tamit gouvernement bi taxaw ci mbiram. di ñaan tamit gouvernement bi ñu taxaw ci mbiram. ndax borom njaboot la amoon na soxna amoon nay doom. borom njaboot la amoon na soxna amoon nay doom. mi ngeeg ay wayjur. mi ngeeg ay wayjur. te def nañ ci moom lu bari. te def nañ ci moom lu bari. fii mu toll ci xam-xam mu toll fa. ba fii mu toll ci xam-xam mu toll fa. li mu fi mu àggoon fa sori la ci xam-xam. fi mu àggoon fa sori la ci xam-xam. loolee at yu bari la ko ay waajuram def. loolee ay at yu bari la ay ay waajuram def. ñàkk ci maanaam ci alal kenn xamu nu mu toll. lañ ñàkk ci alal kenn xamu nu mu toll. kon ak faatoom lu ñu war a taxaw la. kon ak faatoom lu ñu war a taxaw la. Muhammad du nit ku ndaw. ndax Muhammad du nit ku ndaw de. màgg la. nit ku màgg la. koo xam ne ak faatoom adduna bi yëg na. koo xam ne ak faatoom adduna bi yëpp yëg nañ ak faatoom. kon buñ bëggee jàmm am ci réew mi nañu nañu nañu taxaw ci mbiram. kon ñu bëggee jàmm am ci réew mi nañ taxaw ci mbiram. ndax li wér mooy nitu yàlla la. ndax li wér te yàlla la de. ndox moo ko dal. koo xam ne ndox moo ko dal. ak natt bu jógee fa yàlla. ak natt bu jógee fa yàlla. fan wu jeex. ak fan wu jeex. waaye nitu jàmm la koo xam ne kenn mësu ko gis. waaye nitu jàmm la xam ne jàmm ji mu amoon kenn mës a gis ku bëree jàmm di seen Mouhamed Diop. kenn ma maa ngi Mouhamed nangam. kenn mës a ñëw ci côté dégg ne ko maag Mouhamed Diop dañoo jotee. mësta am kenn mësta am amul kenn ku mës a ñëw ci côté dégg yi kalaame ko Cheikh Mouhamed Diop ngir lan jàmm joo am dafa nekkoon ci moom. nañu taxaw ci mbiram bu baax. kon nañu taxaw ci saytu mbiram bu baax. toppatoo gannaawam. toppatoo gannaawam. leeral lépp rek. leeral lépp rek. ñoo ngi koy ñaan ñi nga xam ne ñooy njaboote. maanaam loolu ku te na mi koy ñaan ñi nga xam ne ñoo njaboote. tey suñuy kilifa. tey suñuy kilifa. te yàlla dénk leen nguur. te yàlla dénk leen nguur. ñun ba mbir mi xawee ba léegi jàmm rek lañ ciy def. ñun ba mbir mi xawee ba léegi jàmm rek lañ ciy def. jàmm rek lañ ciy wax. jàmm rek lañ ciy wax. xaadim mii bi ma wooyee. Cheikh xaadim mii nga xam ne mooy kilifa daara ji bi nga xamante ne woo na ku tedd gi. taalibe yi ay junni lañu. taalibe yi àgg nañ ci bari foo xam ay junni junni lañu. fii ci Mbour rek ay junni lañu. fii ci Mbour rek mat nañ fa ay junni. ci yeneen dëkk yi Mbora ak ak Saalum ak Linguère ak fépp la taalibe. ci yeneen dëkk yi Kaolack Mbora Saalum Jolof fu nekk Siin Saalum Bawal yépp ay taalibe ña fa. bokkul ci mbooloo su ndaw mbooloo mu yaatu la bokk. kon moom bokkul si mbooloo su ndaw ci mbooloo mu yaatu la bokk. bu nekkoon nit yi safaan réew mi kenn ku ne mi ngi ne bu fekkoonte ne mbooloo mi ay nit yi safaan la kon ba léegi maanaam ñëpp ñuy dégg. waaye maa jox seen kilifa ñoom ñëpp nekk ñoom ñëpp jox leen bataaxal leen ne lépp ko teg ci yar ak teggin ak jàmm. waaye ku tedd ki moo woo si xarit ni jokkoo ak taalibe yi ni leen mbir mii nañ ci doxe ak jullit gu mat sëkk ak taalibe gu mat sëkk te mooy lan wane ci yar mat sëkk ak teggin yu mat sëkk. taxawaay boobu nag buñ ko ci taxawee bu mu tax ñu woyefal ko. taxawaay boobu nag buñ ko ci taxawee bu mu tax nag ñu woyefal ko. bu mu tax ñu cof ko. bu mu tax ñu cof ko. ñu war a teg mbir mi yëpp ñu ngi leen di ñaan ñu teg ko. fa ñu war a teg mbir mi yëpp ñu ngi leen di ñaan ñu teg ko fa. ko defee loolu daal mooy sedd suñu xol. su ko defee loolu day dafay sedd suñu xol. moo ñuy may ak dal. moo ñuy may ak dal. ndax ki ñu ñàkk moom dara mënu koo wuti ci ñun. ndax ki ñu ñàkk moom dara mënu koo wuti ci ñun. amul amul leneen lu ko a wuti. kooku kenn la koo xam ne kenn mënu koo wuti ci ñun. ko doon jaayee ay milliards ñu lànk. buñ ko buñ ko doon jaayee ay milliards wóor na yàlla ay milliards ñu doon ñaay. ku tedd gi ne wóor na yàlla àdduna ak li ci biiram buñ ko boole di ñu ko maanaam di ñu ko jox ngir ñu jox leen si Mamadou Diop kenn du ak kon maanaam kenn du ko jënd ci ñun. kër gii mu nekkoon moo fi doon sëriñ. kër gii mu nekkoon moo fi gën a doon bi ak paa bi moo doon seen sëriñ ñun ñëpp. Ah, ko woon doom ak sëriñ la ko jàppee woon. bàyyam bii di ko woon. sëriñ bu fi am naa ko takk. sëy bu am ci kër gi ku tedd gi moo ko takk. moo leen di góorgóorlu indi sama kër. te moom mooy dajale njaboot gi indi leen këram. doom bi fi am maa ko tudd. doom ji fi am moo ko tudd. te moo leen di jiital indi. te moom moo leen di jiital indi. ganaar sax ba lañ ko feeree ni ñëw na ganaar gi dañ fee. ganaar sax ba lañ ko rey ci kër gi dinañ ñëw ci ku tedd gi ne ko dafa am ganaar bu ñu bëggoon rey ndax am na ci ndigal bu leen nee rey leen ñu rey bu leen nee bu leen rey bu ñu rey. ganaar gi ju fi am seex moom da koy def ay booli indil ma boole ci ay poisson du ne teranga yu am ci kër gi da cay def ay boole boole ko ay boisson teranga ju nekk Cheikh Mamadou Diop indi na bu tedd bi ñun waa jamaatu Hizbullah li xidmatul xadim liñ ñu xañ xamuñu ni mu toll kon ñun waa jamaatu Hizbullah li xidmatul xadim liñ ñu xañ xamuñu ni mu toll réy réy réy fi ñun lu réy réy réy fi ñun dafa fekk maanaam dafay fekk na ngëm yàlla gu doy dafa fekk xew bi muy ñëw dañ fee dafay fekk ngëm yàlla gu doy sëkk ak sago ak sago yar ak yar. looloo tax dégguñ coow. looloo tax dégguñu benn coow. ni mbooloo mi toll ci Sénégal ak biti Sénégal. waaye mbooloo mi ni mu toll ci biir réew mi ak bitim réew. ku mel nii ñu ñàkk ko. ku mel nii ñu ñàkk ko. su ma leen artu wutoon. su fekkoon ne ku tedd gi artu wunu. coow li ñu ngi koy dégg fu ne. kon coow li ñu ngi koy dégg fu ne. kon ñoom it nañ ñu sagale gannaawam ñu toppatoo. kon ñoom it nañ ñu sagale ginnaawam ñu toppatoo ko. defee uh, ay ay waajuram seeni xol mën a sedd. su ko defee ay waajuram seeni xol mën a sedd. soxnaam xolam mën a sedd. soxnaam xolam mën a sedd. tànk yu ndaw la bàyyi. tout tànk yu ndaw la bàyyi. war nañ leen topp dox. te war nañ leen topp ndax ki ci mag amagul juróom-ñaar ak ki ci mujj ñeenti weer la am. ñooñu tamit ñu taxaw leen. ñooñu tamit kon war na leen a taxawu. loolu ñu ngi leen koy ñaan. loolu de ñu koy ñaan. di ko teg nag ci jàmm. di ko teg nag ci jàmm nag ñaan ko ci ay ci jàmm lañ koy teg. boobaag léegi ñun amul lenn luñ ci def luñ war a def. nga xam ni ba mbir mi xewee ba léegi amul lenn luñ ci def luñ ci war a def. waaw kay ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. ku tedd gi nee na nag mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. waaye man di jógee. fépp foo xam ne waa jóge na fi. ñu ngi koy yëg bu baax a baax. ku tedd gi ne nag fi fu waay jóge te ñëw fi rek yëg na ko bu baax a baax. gis nañ ñi ngeen taxawee ci mbiram. gis nañ ñi ngeen taxawee ci mbiram. di sant sama kilifa sëñ Abdoulaye Mbacke yàlla. di sant kilifaam sëñ Abdoulaye Mbacke yàllaay buur. sama rakku baay la waaye tey mooy xalifa bi. nga xam ne rakku baayam la waaye tey mooy xalifa bi. Euh, moom it wax dëgg yàlla taxawaay bi mu ci taxaw rafet la. moom it wax dëgg yàlla taxawaay bi fi taxaw taxawaay bu la. bi mu yëgee mbir mi rek la ma woo xaarul sax ma tàgge ko ko. ngir moom bi mu yëgee mbir mi rek la ko woo xaarul sax ma ko ko. maa ngi waat ci yàlla ne foofu mu tëdd du fa gis lu ragal. daal ne maa ngi waat ci yàlla ne fa mu tëdd foofa day du fa gis lenn lu mu ragal. ne ma maa ngi waat ci yàlla ne li doon ànd ak yow rëccu. mu laa da cee teg ni maa ngi waat ci yàlla ni lam doon ànd ak yow tey jii du ko rëccu. daal ne lu ma ni naqadee kenn mësu ko gis. daal naqar réew kenn mësu koo gis sëñ Talla wax na ko léegi kon kon gannaaw ba dem na ba wax njiitu réew loolu naqari na ko sëñ Talla wax na ko léegi ci kàddoom ginnaaw boo sëñ Abdoulaye Mbacke dem na ba ci njiitu réew mi wax ko ko kon loolu naqari na ko kon lañ bëggoon wax lépp mënuñu koo wax kon lañu bëggoon wax lépp mënuñu koo wax suñu xel dafa fattu tey. ndax suñu xel dafa fattu tey. waaw lañ bëggoon a wax lépp mënuñ koo wax. ba lañ bëggoon wax lépp mënuñ koo wax. waaye daal ci tënk ñoo ngi sant mbokki taalibeem yi. waaye daal ci tënk ku tedd gi nee na mu ngi sant ñun mbokki taalibeem ñun ñii. ñoom it boobaak léegi kenn ko ne dafa jàpp ne ci moom moo ne ndax ñun de boobaak léegi kenn ku nekk ci dangaa jàpp ne maanaam sa jëmma dem. ndax moom soppeek ñëpp la woon. ndax moom de day soppeek ñëpp la woon. bu la masaan nuyu da lay téye fóon la taf la ci yaram. bu la masaan nuyu daf lay téye ci boppam. man ñii bu ma daan nuyu sama tànk yeeg yëpp da koy raay bi. maanaam moom sax àggoon na sopp ko téléphone bu ko daan nuyu tànk mi da koy di ko raay. bi ma ko seexalee dafa daanu dañ ko yëkkati. li nga xamante ni keroog sëy mi defal na ko martabatu cheikh dafa daanu ñun ñëpp ñoo ko doon yëkkati. tàqali koog sagom ba nit ñee ko leew yëkkati. keroog dafa tàqali ba nit ñi ñoo ko leew yëkkati ko. kon moom mi ngi la doon foo lëti yi. ilaa wafaat yi defagul yàlla gërëmal. moom bi mu gënee jamono. ba ni nga xam noonu la Pape yàlla gërëm ko. lu yàlla gërëm rek la doon def. lu yàlla gërëm rek la doon def. نشأ شابا مستقيما nasha shaban mustaqim dafa sosu rek di ndaw loo xam ne dafa jub xocc tew ci siraatal mustaqim mooy ni nga xam ne noonu la ko dee dikkale maanaam musta def lu naqari yàlla ci ñub rek la tege woon sant yàlla rek ci war kon mbir mi day sant yàlla rek ci war ndax mënoon naa lakk boppam ndax moom mënoon naa ay nit a ngi lakk ko maîtriser lakk seen bopp lakkul bopp te moom lakkul boppam yàlla na ak mujjam yàlla rafetal na ak mujjam fi mbir mi xewee fi mu faatoo benn la sonn. fi mbir mi xewee la jëmmam. yàlla suturaal na jëmmam. benn cër naccul ci moom benn cër daggul ci moom. ba benn cër naccul ci moom kon loolu ak sant la. wasalaamaaleykum. wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf Mbacke. kon rek bu tedd gi def ñaan.